lamb ji nag du nekk en làmb ji fi mu nekk nii mënatul dem sans pay-per-view bokk. kon pay-per-view bii. Mhm. ay xale ko créé c'est la génération consciente. et c'est c'est de l'innovation man Bambaly Seck dina naa sama code daw leen jëndi gaaw seen i code. yéen waa diaspora gànnaayoo leen seen carte bancaire dugg ci site bi. seen affiche point com. ñi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal. TNT ngay jaar. ñi nga xamante ni ñoo nekk ci diaspora bi. sa carte bancaire nga yor. dugg seen affiche. point seetaan ko fa. dañuy toog ba dernier moment nañu teel a jël suñu ay disposition ndax ma wax leen ko fii ñoom duñ leen ko ñeme wax làmb ji bu amul pay-per-view dee na chance ngeen am de jàpp leen ca de mooy leen ca. <laughs> lu leer laa leen wax. làmb mu ngi doon perte vitesse ne serait-ce ak trouvaille pay-per-view. espoir l'espoir est permis. ñëpp a koy amee nag ci seen affiche point com. waaw Lamine maa ngi lay fay di nuyu axlu làmb di bépp supporter Lac de Guiers numéro 2. Mm-hmm. képp koo xam ne yaa ngi ci àdduna bi di seetaan émission bi ñu lay nuyu. Mm-hmm. comme ni ma ko laajee sa adversaire démb rek noonu laa la koy laajee 20 jours des ci combat bi fan la woon Lac toll ci waajtaay. waaw 20 jours moo ci des bon wàccaay moom bu ñu ciy nekk naa fan laa toll ci wàccaay day xaw a day xaw a kii quoi daf may xaw a jaaxal trop ndax am combat dañuy entraîné ñàkk am combat dañuy entraîné pare nañ bu yàgg di xaar bés ba rek moo ci des fi mu ne mm-hmm. pare nga comme li ma ko laajee sa adversaire rek mën naa ne ci question yooyu laay ñëw ak yow. Ah. yéen ñaar seen combat dafa taxaw sénégalais yu bari ni nekkul combat buy neex booy ñaaw moom nee na côté am dina ko neexal est-ce que Lac 2 mën naa dig amateurs yi ay supporteurs ak ay supporteurs booy ñaaw. kàttanu yàlla yàlla combat bu neex lay doon boo xamante ne. dina jaaxal amateur yi incha allah bu neexee yàlla combat bu neex lay doon. Mhm. kon nag dafa nar a bàyyi maninam. taxaw déglu jublu adversaire manin nit ku nekk kuy bëre boo bàyyi sa gis ci lu la metti mais dégg lu ma la bésu làmb ji lu mu laaj danañ ko def incha allah lu mu laaj danañ ko def. Mhm. ñu gis dernier combat am yëpp waa Géejawaay la ko bëreel benn instant sax moom day wax dugg na huit huit fois kii Géejawaay. def fi huit victoire keroog seen face à bi mu ne la su ma jógee ci yow xam nga ko ci topp ban taxawaay la lak am instant bi ci loolu ndax sonal na leen nag lëg ak lu mën a xew sonal na leen. waaw mais loolu day am day am ci làmb day am ci làmb des fois yàlla day tudd na ay victoire am fi la ko war a amee rek biir géej waay ah yaa ngi dégg euh, c'est pas question daf ñoo sonal parce que di nga di nga raam ba yegg foo xamante ne waroo foon yegg looloo ko dal nag. comme dem na ba yegg si incha allah bu neexee yàlla ci kàttanu yàlla bu fekkee yàlla mi may dindiw ko yàlla dinañu may ndam. kon yaakaar nga ni Boy Niang dafa laal laalaake. <laughs> moom xam na loolu sax. waxal ko waxee boo ko waxee boo ko waxul. waxu ko man kay xaw moo gën a xam ne ne am na laal na moo la gën a xam loolu. Hmm. Boy Niang xam na ne bu baax ne kuy Lac de Guiers numéro 2 nit ñoo fi nekk di werante nii rek supporter ñooy nekk di wax rek. gaa yi nekk ci internet yi ku nekk di wax di sant sa kàddu mais am problème on gère c' parce que internet yi ku jóg day wax. Hmm. loo neex wax mais maag booy ñaar bu ñu tëjoo ci biir géew gi. le treize la Lac de Guiers numéro 2. le treize dina xam. le treize rek ci kàttanu yàlla dina xam kuy Lac de Guiers 2. Hmm. ko nar a wane rek. la booy ñaar Lac de loxo arbitre bi day wàcc mu dox ci kaw booy ñaar indil ko ay gos droite wala day xaar mu ñëw mu jàpp ko jaay ko doole. non moom ci boppam ci biir waxam nee na daf bëgg ñu jëflante. te xam naa der la xam naa ne bañkat la xam naa ne xeexkat la waaye bés boobu dina xam ne la dëgër de lay dëgër nee naa ko démb yéen ñaar ñëpp dañ leen di jiiñ ay xeexkat est-ce que le treize mën ngeen woon Sénégalais ne yéen lañ leen di jiiñ parce que yow dañ laa tudde le penseur du Waalo moom ñu ne bi mu amee sept ba léegi mu ngi jàng boxe te boobu ba léegi gis ñu ngeen wan nit ñi xeex boo xamante ni na leen que le treize mën ngeen wan nit ñi xeex boobu. bu dawul. Hmm. dafa tàmm leen arbitre ne piip muy déplacé wu jëm ca côté saako yi di la a mépp man xam naa ne sax loolu lay def waaw. su defee loolu lu ko ci fekk. def loolu jël suñu temps rek dëgg benn par benn di ko fekk si. ak lu mën a xew di nga dox ci kawam. dégg lu ma wax ci kàttanu yàlla. wax ko mu leen ko yoot tànk boo dëgg pour arrière dina dëgg tànk benn par benn di ñëw. fu mu teggi tànkam nga teg fa sa tànk fu mu teggi tànkam teg nga fa sa tànk tànk bu mu dëgg di arrière naa dëgg benn tànk bu ànd ak calcul lu leer laa la wax dëgg benn tànk dox benn par benn dox ci kaw ba arbitre na fiip hmm. ah. kon dafa mel xam naa day ñëw te ma bëgg moom xam na ko day ñëw ba arbitre na piip mu ñëw wala mu taxaw ban moo la ci gënal ñaar yëpp bu mu ci af bu mu ci def rek bëgg hmm. naa bu taxawee ma fekk ko bu ñëwee ñu daje. kon nag yaay diriger. déggoo lu ma wax ci kàttanu yàlla incha allah bu neexee yàlla bu ñëwee ñu daje taxawee man ma fekk ko man. Hmm. te dama bëgg li muy woote rek na doon dëgg ci moom. loolu kay ñaan ko ko mu en direct mu dégg la. dama lay ñaan rek li ngay woote na doon dëgg ci yow. lan lay moom lan lay woote sax. Ah, li muy woote kay xam na ko nee dafa bëgg ñu jëflante. waaw loolu de wax na ko te nee na moom kat la ah. préparé loolu rek incha bu neexee yàlla ah yàlla baax na. nee na nag jiñ na la ne nag da ngay teg baraada. te moom nee instant bi fu naanaa ñor mu jënd ko. na bàyyi waxum baraada baraada sax doom instant baraada googu mu sax instant doom instant. nee na da ngay jël sa kenn du parce que man du ma naan ataay kenn du na yow da ngay jël sa temps di calculer loolu tax. sax mu dem ba ji nag man loolu dama koy wax souvent. ku ci calculé wul jël ci jëlee ci jëli bu la bu yéem sa àdduna mhm. ku ci ci jëlee jëli bu la pett mais combat bi ak ma fonk sur tous les nag plan bu mu xalaat rek jàppal ne plan boobu dox na sama xel ba romb ko plan bu mu xalaat maa ngi koy dox di romb. dafa mel ni yow booy ñaar lim lal yëpp instant bi da nga ko xam. déggoo li ma la mooy li ma la rek lépp. plan yëpp laay fatt ci kàttanu yàlla plan bi mu gën a fonk guddi yi tool na jàpp ne maa ko fonk. ban la. moom xam na xam naa. xanaa mystique bi la. xaw ma je sais pas. wala doole ji. déggoo li mu la ci côté kàttan moom ah. alhamdulilah sant yàlla baax a baax. yéen ñaar yàlla jox nañu ko. yéen ñaar ko ëpp doole koy liggéey liggéey métta. Ah. yéen ñaar doole doole. doole mbër laa la wax doole bëri doole. waaw dañuy ñaan yàlla mu dolli ñu man xaw ma maa moom ko doole la. foog nga jàppante xam. Ah, bu ñu jàppante dinañ xam ko am kan moo dàq bëre yéen ñaar. ku dàq bëre. booy ñaar dàq ma bëre. ku dàq laa laaj. maa ko dàq ku dàq ku dàq xeex. ku dàq xeex. booy ñaar <laughs> yow ku dàq xeex mag yow dafa daf may moo koy laaj. parce que mu am na lu mu ci tontu dama la jox dama la jox tontom laa laaj yow. moom lan nga jàpp ku dàq xeex. man booy ñaar man boo ma ñu mu des mystique bi yéen ñaar ku ko ëpp. côté mystique non xaw ma moom moo bëri côté mystique. <laughs> moom nee na yaa ko nee na yaa ko ëpp doole yaa ko dàq bëre yaa ko dàq xeex yaa ko ëpp mystique. ëpp ma ko mystique de dimbale ma ngir yàlla rek bul ma tojal ëpp ma la mystique ku la raw dee yow sa mystique kenn xamul nu mu toll ngay taxaw di wax naan dañoo am mystique yaa ngi may koj de te ba ma kojee ma wiiraat beneen ko ngay wax looy wax. est-ce que gisu xëy na dafa am fu mu la gis. waaw yow <laughs> eh, ah, mais en tout cas daal doo ma ko leer naa la. ndox bu sedd bu yoree tey dama jël sa mystique fa na ndox bu sedd bu yoree tey la de noonu ko gis de boo demee mu ngi di jënd say mbir. ci ban côté. ci mystique bi. ci mystique bi am na côté boobu xamante ne maa ko boobu xamante ne moom bu mu fa sax dem. Marie Sophie demee ñu tëbal ko. ah non foofu moom bu fa dem. Hmm. léegi gis nañ la. léegi nag beneen bis ma Casamance gee mu yaakaar maa ko fa ëppalee fuuf. dafay dem. déggu lu ma la Casamance gee yaakaar ne laa lax de maa ko fa ëppalee fuuf ndax sama mbokk soose yëpp joolaa yëpp béy ndunke yëpp ñu ngi leen di sàkku ñaan te ñoo ñu ngi sama ginnaaw. Hmm. gis nañ say vidéo nga summeeku nekk ci diini yenu. vidéo waaw gis nañ ko. say vidéo yow. Uh-huh. nga sumee ku nekk ci dune waaw yenu ay saaku suuf. ay saaku suuf waaw xaw ma saaku lan la sax saaku yu diis la daal en tout cas moom nee na moom li muy liggéey li muy liggéey moom nee na li muy liggéey du ko génnee ci ay ay ay téléphone ak ay télé. Ah, c'est man vidéo ba sax gars yi dafa rëcc gars yi parce ba ma ko gisee ci net bi fa damaa jommi. micro ba ma ko gisee ci net bi fa damaa jommi samay vidéo du faral di génn. am na ay ñoo xamante ne jàpp nañ leen ni ay borom xam-xam lañ nee nañ Lac 2 li muy chargé nii di yéeg ak moom di nii ku nar a bëre ji du ko def ku nar a téye boppam mooy mooy entraîné nii. loolu ngay waajal ku nara a. non xam nga ñun. vidéo yi bañ ko defee yàgg na. ah ok du vidéo ko defee yàgg na léeg li ci des nag li mu laaj ñu ngi ci dernier virage yi def naa si je me rappelle très bien su juumul ñu ngi ci dernier virage lépp lu ñu war fu mu nii. mooy teg-teggi la teg-teggi rek amatul bàyyi fu ne nii lépp loo gis rek rapidité lañ ci def waaw saag yooyu nag boo naree daje koo xam dafa dëgër bopp da koy duyal lu woo ko waxoon naa leen ko nee naa leen bu ñëpp di xaar pour daan la jël bu rëy da ngay liggéey lu wow koŋ ñëw taxaw liggéey lu wow koŋ la mooy waroon li nga gis noonu rek leen leneen ci des nag ñu boole ci rapidité boo xamante ne fu nit génnee rek ñu def fekk feneen fu ñu des. Hmm. amoo dara looy moytu ci combat bi ci la de ci ci Boy Niang wala ci non ci Boy Niang wala ci ñeneen amul dara looy moytu instant bi ci combat bi yow. li may moytu man xam naa ko te bésu làmb ci incha allah bu neexee yàlla loolu noonu samay nit dinañ ci veillé bu baax a baax a baax a baax lu leer laa la wax bañu ma ci boppam kenn laa la wax combat bi daf ma jaral li may wax nag ñi may wax nag xam nañ seen bopp hmm. mais nag combat bi daf ma jaral dëgg samay nit dinañ ci te bu ñu bëggee combat bi yegg nag nañu xam fu ñuy teg seen tànk loolu rek la. Hmm. junj nag doy na borom xel du wax kii la du ma wax kaa mais combat bi déggul ma la géej waaye da ko fonk ma fonk romb fonk combat bi daf ma jaral. waaw daan bañ am problème moom wala nga gis ci lu la metti dëgg. waaye bul jege la de guerre xanaa loolu camp adversaire la. je sais pas ak ku mënti doon ah. am na ñoom nga amal affaire. ah man je ak ku mënti doon. mooy adverse côté adversaire bi ñàkk côté adversaire bi yëpp laa yemale ba bés bi moom moo ko laaj. Hmm. daanañ la daan daanañ la dégg ngay wax ni tëral ma yomb na waaye. ren moom mooy jëfe. yaa ngi ci loolu bay est-ce que lag boobu moo rek. waaw ba léegi lag boobu moom sama garde te may jëlee sama garde ba nii sax nii may waxee ak yéen nii ba ni may waxee ak yéen nii fii ñu toog nii ci géej gi nii maa ngi jël sama garde. Hmm. sur tous les plans kenn du la bett ci dara. déggoo lu ma la wax garde gi kay maa ngi koy jël bu baax. bu jaree dóor nga dóor bu jaree matt nga matt. waaye suul. looy suul. lépp lay suul. ndax boo ñaa lu ma la wax lépp lay suul wax na fa mu dégg-dégg nag buñ jël wax yóbbu boo xamante ne mooy loolu. <laughs> leeral ko moo gën de. waaw moo tax ma ne wax gi dafa am dégg-dégg lépp lay suul. Mhm. Balla Gaye moom nee ak lu mën a xew. Uh-huh. mës ta jël ay décision di wax. Ah. ni mu waxee nii nee na ak lu mën a xew da am ndam. fu mu teg loolu fan ngeen dem ñaan yàlla fan ngeen dem ba ba bañ assuré leen lool mais xam nga ñaan du doy dañuy dem rek dañuy dem ñaan du doy yaa ngi dégg moom fu mu dem mu ngi fay war a dem man fu dem mu fay maa ngi fay war a dem Alioune Seye 2 waxi na Sa Thiès waxi na géejuwaay mbër yëpp coalition bi yëpp ñu ngi dem daal di dañuy sàkku ñaan rek yàlla rek moom moo xam ndax dinañ nangu ñaan yow wala nangu ñaan yi hmm. mais li ñaan yàlla ñi nga xamante ne seen mébét bi géejuwaay ak xool bu rafet bi ñuy demee yàlla na yàlla wuy si loolu moom mooy coow li. géejuwaay yëpp Lac mi ngi leen di sentir bi ci ginnaawam. waaw alhamdulilah maa ngi leen di sentir bu baax waaw maa ngi leen di sentir bu baax a baax a baax parce que nit bu waxee man dootuma xale ah magum jëm laa. nit bu waxee su ma xoolee sa bët dinaa xam ban façon nit nga dinaa xam lii ndax xam egg na sa biir xol wala déet parce que lu mu bon bon bon yàgg nañ làmb yàgg nañ ci làmb trop. ah c'est normal nag ñu jël seen i garde ndax. Ah. bi sonal na leen de. curuxu ah, curuxu la la andil nee na. curuxu curuxu. man façon termam yooyu man xaw ma ko nag. man su may wax damay wax nit ñi dégg. da nga ko war a jéem a xam ne curuxu curuxu. waaw. curuxu curuxu mooy lan. Ah, xam. loolu ay xeetu langage am la moom ñun ay curuxu bu ñuy wax ñun dañuy wax ak nit ñi nga xam ne ñu ngi déglu am na terme yoo xam ne am na kilifa ñu ñuy déglu xam na bëgg nañ xam li ñuy wax lan la yaa ngi dégg parce que lu mu bon bon bon bon bon booy wax dara. ay curuxu curuxu tey boo demoon bu toog kilifa gi ñu ne ko euh, curuxu ji danaa laaj lamooy mooy curuxu curuxu yaa ngi dégg kon donc ñun bu ñuy wax parce que dootuñu ay xale bu ñuy wax dañuy wax li nga xamante nit ñi dañuy dégg ñu xam baax li wax li lan la. ah mais est ce que loolu nekkul après la koy tekki termam la moom. parce que moog Sa na ñu bi. tekki na ko ah, xam. voilà mu noonu dafa war di tekki yi mel noonu pour nit ñi di xam. ñaan ko loolu muy tekki affaire yi. waaw dama bëgg dama bëgg ko ñaan dara lan laa koy ñaan. yow amul loo koy ñaan dara lu la la ñaan ma ñaan ñaan ma la dara naa ma may lu ma lay ñaan. beneen bis toppaat dama bëgg bu waxee dara comme ay curuxu curuxoog caraxa caraxa yooyu bu ko waxatee. boo ko waxatee après combat bi da nga koy nga koy tekki ñu xam luy curuxu curuxu en tout cas boo xaw ma curuxu curuxu xaw ma ci. <laughs> non booy neex non man li ma gën a metti rek moom mu ngi mel ni xamul ku muy bëreel te ay langage am da nga commencé changé commencement ba ba ñuy commencé combat bi mu jógee taxaw face à face lu nekk yàq na ma ko. ah dinaa la def nii dinaa def <laughs> dernier virage yi mu ay champion la déedéet du ma champion de bul dëpp carte gi du ma sa dara yow nañ bëree pare bu ñu bëree pare nga ne ma champion nga te bés baa ci kàttanu yàlla di nga ma tóojal yow. ah lu leer di ma def capot. lu leer di nga ne ma capot. la ko man dañ lay tóojal man man man ngay tóojal mais la incha la confiance bi ngay dégager nii lan la lan la da ngaa liggéey ba sentir sa bopp. waaw nga tey bu la wóoree na tey yaa ah, liggéey nga loo xamante ne tey sa xel dal na dem nga ci kilifa yi ñu ñaanal la dem nga ci sëtu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu ñaanal la ah ñi nga dégg ñi nga déggul ñi nga gis ak ñi nga gisu yaa ngi dégg. nga liggéey ba soosey waalo waalo yi ñëpp ñaanal la nga entraînement entraînement yu wóor am ñaanu waajur a ah, boo tëddee boo nelawul de dina ma jaaxal trop tëdd nelaw rek moom géej waay laa wax lu ko wër yëpp. ak sama fans yi fu ñu mënti nekk am na ay fans géej wa parcelle Pikine fépp la am fans. Pikine loo fu mu géejawaay nag géejawaay nag maa ngi leen di woo nu ñëpp génn ci kàttanu yàlla incha allah yàlla ñu may ndam. sama doomu ndey sama xarit sama xaritu xol muy reyante ndey mbax muy muy maaraabu maara raabu burkilin mu ngi ca biir da ciy tax rib na ñëw bési bésam la waaw wuute nga bu kenn des na ñëpp ñëw yaa ngi de Pikine kafe ga. waa kafe ga loo wuti Pikine ba Boy Niang kii Boy Niang démb tudd na waa géej waaye tey nga tudd waa Pikine ah, waaw man Pikine dama fa am fans ah wallahi dama fa may fans yoo xam ne may bégee yi may bégee laa de waaw waa Seras as doom ndey sama xarit as bu Seras maa ngi koy woo ci combat bi baax a baax a baax di woo képp koo xamante ne sama doom ndey Ousseynou ak Assane seexu yàlla yi ñu ngi leen di woo ci combat bi tamit ñooñu samay doom ndey lañ mais as nag mooma ah, Oma Fayam day sonn ci combat bu baax a baax a baax. père père père Birahim nee na Boy ñaar dafa xool feebar bi nga xam ne moo gën a dangereux bu naqar faj mu ñëw xool ko muy la muy siti siti lay daje bu génnee siti ñu xam ne ndaanaan la. nag du nekk en direct. ji fi mu nekk nii mënatul dem sans bokkuñu. Hmm. kon pay per view bii. Hmm. ay xale ko créé c' la génération consciente. c' yi c' est de l' innovation. dina naa sama code daw leen jënd gaaw seen i code. yéen waa diaspora gànnaayoo leen seen carte bancaire dugg ci site bi. seen affice point com. ñi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal. TNT ngay jaar. ñi nga xamante ni ñoo nekk ci diaspora bi. sa carte bancaire nga yor. dugg seen affice point com seetaan ko fa. dañuy toog ba dernier moment nañu teel a jël suma ay dispositions. ndax ma wax leen ko fii ñoom duñ leen ko ñeme wax làmb ji bu amul pay-per-view dee na chance ngeen am de jàpp leen ca de mooy leen ca. Mhm. lu leer laa leen wax. làmb mu ngi doon perte vitesse ne serait-ce ak trouvaille pay-per-view. espoir l'espoir est permis. ñëpp a ngi koy amee nag ci seen affiche point com.